xanaa neex rek parce que le 8 mars mooy jigéen ñi daal mënoon nañu ko jagleel contentement dong lañ si am moom fa dëgg ah am contentement rek fa dëgg yàlla ndax jigéen moom da ko war sagal te fànn bu mu mënta nekk rek jigéen dañ ko war sagal journée de la femme laal la ñu wax waaw tey de moom suñu bis la daal. ndax ñun jigéen ñi dañ ñoo war a chaque jour ndax chaque jour ngi daw te suñu kër yi rek ñoo ñu ñor kon nak maa ngi ñaan feet bi kenn ku nekk yàlla na la fekk si jàmm ci barke Serigne mais daal ñun dañoo xeeb 8 mars bi parce que ñun année bi yëpp dañu ko waroon a jagleel mais benn jour kese dañ koo xeeb quand même jour bi spécial na parce que ñu ngi ñu ciy jox suñu valeur di ñu reconnaître. ah sama yaay kay xanaa di ko ñaan rek gudd fan ak wér dëgg yàlla ndax yaay yaayu ñëpp sax laa koy ñaanal képp kuy yaay rek maa ngi lay ñaanal gudd fan wér ak wér. dama koy gërëm di ko sant parce ni nit moo amul lu waajuram dafa dëgg yàlla gërëm lañ ko daal sant lañ ko.

yu métti yi ñuy teg yëpp ñu ngi ñu koy teg ba tey yooyu si boppam moo war a jeex.